yow mii di seetaan dalal ak jàmm ci chaîne bi di Tivaouane Tawfekh bul fàtte abonné ci chaîne bi di Tivaouane Tawfekh aimé vidéo bi commentaire ngir nga jàpp ci liggéeyu chaîne bi di Tivaouane Tawfekh nga xam ni Tawfekh rek la leen di jox yow mi nga xam ni da nga am programme wala lu mu mënti doon wala marchandise te bëgg koo siiwal mën nga jokkoo ak chaîne bi di Tivaouane Tawfekh ci numéro yi mën nga ñu fekk ci TikTok Facebook Instagram ba ci sax YouTube. maa ni Tawfekh rek ngeen di dégg ci lépp lu jëm ci seen wàllu wérgu yaram ndax suñu produit Tawfekh yi nga xamante ni ay produit bio naturel la yoo xam gàncax yi nekk lépp sunu réew lañu ko defaree wa tawfeex ci lan tawfeex ci walu néegu sëy tawfeex ci wàllu mbixum siti ba ci tawfeex ci wàllum hémorroïde tawfeexu sëy bi moy produit bo xamanteni mo moo soxal képp ko am jafé jafé ci néegu sëy néew carton jeex na tàkk boo ko fi nga tok 10 minutes avant rek da ngay dégg jàmm soxna ci kontaan nga kontaan néegu sëy bi neex néew carton ci rew mi jeex na tàkk ak tawfeexu sëy bi lal ko légui joni joni légui muy bax légui cay tawfeexu sëy bi ak tawfeexu ndoxu ndoxum City. Kep ko xamante ni jàngoroy ndoxum siti daf la sonal japp len ni di ci am taw ndax jeexna tak ak taw féexu ndoxum siti taw féexu bi kep ko am ballonnement wala nga am hémorroïde externe wala interne japp len ni jeexna na jàngoroy hémorroïde sonal ñu bëri taw féexu mom da daa dëkk jële fi lepp. am nañu produit bo xamante ni moo leen soxal bu seen yaram di diis du ngeen man dara yaram bi diis gann ngeen di tayel ba japp ni sax dañu len liggéey fekk na yaram bu diis tong la jàpp leen les suñu produit yii bu ngeen ko jëlee di nga oyof tol 77 593 19 11 wala 77 245 36 39 kon dina Omar Kayre produit yu baax yi Omar Kayre ñu andil tawfiix ma bii wuti ko te xam sonal na ñu waaye tawfiix rek nga. rek rek parce que xam ne la. fi nga xamante ne mooy Serigne Moustapha surtout Serigne Hadji Malick la di sët si baaba Babacar Sy te yaakaar naa Serigne kër si moo nekk waxoon xasir kañ nga may demal tool te ci tool boobu la nekk ba léegi moo tax tey mu ñëw fii pour ziyaare ñi nga xamante ne mooy waaye kër Serigne Babacar Sy ndax moom ci ci ci la bokk moo tax mu mel ni nag tey bisu korité la waaye dafa mel ni Serigne Moustapha ndéwénal bu dàq ci ndéwénal yi la ñu jox mhm. ban yëg-yëg nga am ci lii nga xam ni Serigne Moustapha da koo def mais tànn bisu korité mu def ko ci di bisu feetu jullit ñëpp a ah, xam nga loolu dégg-dégg bi ma ci am rek mooy feet yi bu amee ku nekk ne sa morom baal ma xàq te yaakaar naa baal xàq boobu mooy nga fexe ba lépp loo xamante ne jàppaloon nga ko nit ki lépp loo xamante ne def na la ko mu yëg ko mu ñàkk ko yëg nga jéggal ko ko te te yaakaar naa jullit ak mbokkum jullitam noonu la war a dundee ñàkk ci àdduna mooy moom la ñuy tuddee ay problème problème mënta ñàkk ci àdduna ñàkk déggoo mënta ñàkk ci àdduna waaye li am solo rek ku tooñ ne maa ngi jéggalu ku ñu tooñ tamit nga ne ngi jéggalu te yaakaar naa bés bu mel nii nag bu Cheikh Seydil Hadj euh, Cheikh Mouhamadul Moustapha si ñëw fii si ki nga ne mooy kër maamam mooy lan mooy ñëw beesal li nga xamante ne moom mooy euh, baal ñëpp xàq te baalu ñëpp xàq xam ne li nga xamante ne moom la Seydil Hadj Malick nekkoon li nga xam ne moom la Serigne Babacar si nekkoon li nga xamante ne way juróom moom mooy maam si Ahmed Tidiane si almaktoum moom ci la nekk ba léegi fexe ba ñëpp nekk benn xam ne waa kër Seydil Hadj Malick si benn lañu li am solo rek mooy liñ naan wasila manta ñàkk yàlla ba muy wax dane ku nekk na nga jàpp wasila mais waxu la sa wasila moom moo gën liñ naan ki nga xamante moom mooy dafay seet koo yóbbu ci yàlla dafay seet koo xamante moom moo ko doy waxu la ngay jël wala kër nga la doy nga jàpp ci moom yàlla def na nag ñun njabootu Cheikh Seydina Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy lenn rek moom la ñu gëm muy jàng ak yar te yaakaar naa ku xam njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy xam leen ci loolu moo tax ñun daal amuñu ko moom sopp nañ la ku ko bëgg rek ñun bëgg nañ la. ndax yaakaar nga ni Serigne Babacar si mii ñu jàkkaarloo lii nii kontaan na ci. kontaan na ci lool ndax boo li day dellu ci li ma la waxoon ci njëlbeen di wax ne la la wax ne xasiit kan nga may demal tool te yaakaar naa mënoo jénn tool bi kër Seex Seydi Hadji Sëriñ Babacar kër Si mooy damay gëm ne ki nga xamante ne mooy maamam mi nga xamante ne mooy Sëriñ Babacar Si kontaan na ci moom la mu ko waxoon yaakaar naa bégg na ci bu baax. am nga looy fàttalante ak taalibe yi ci lu mel ni li nga xam ne Sëriñ Moussa def na ko ñëpp kontaan ci hmm. boo amee loo ciy wax en tant que taalibe ak mbokk taalibe lan lay taxawaayam ndax bu sëñ Moustapha defee lii mooy wane ne lépp ñëpp benn lañ kon taalibe bu nekk rek koo gis xam ne sa mbokk la moo xam mbokk tiijaan la moo xam mbokk sax euh, si si si yàlla rek la ñu bokk moo xam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek lañ bokk ñun ñëpp benn lañ innamal a ixwa kon nag yaakaar naa li ma waxoon léegi rek moom moo ci nekk ku nekk na bàyyiwaat xel moroomam mbokkum jullit mbokkum jullit la lépp loo xamante ne luy rafetal la ñu nekk ci ba li nga xamante ni moom la Seex Seex Mouhamadul ci bëgg tax mu ñëw fii mu mën a mottali daal incha allah.